أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ñu ngi ak yéen ci kitaabu tawxid ba tey ñu ngi ci baabun ma jaa fi zabhi li gayrillah buntëb rendil kudul yàlla tey mooy ñetteelu bunt bi rendi te yàlla taxul tëral mbindeef ci mbindeefi yàlla yi ñu war a rey waaye nga rey ko te yàlla taxul buñ ñëwee ci min ahdafi dars man ay an yubayina almuslim xuturatu zabhi li gayri illahi wa in kaana almasbuhu xaqiran tey bokk na ci li ñuy jàng mooy danger bi nga xam ne moo nekk ci rendil lu dul yàlla même bu fekkente nge même bu fekkente ne li nga rendi danga koo xeeb tëral mbindeef ci mbindeefi yàlla yi rendi ko te rendi loo ko yàlla donte ne li nga rendi danga koo xeeb ci ni mu toll musiba bi la ci fekk ñaareel mooy an yastantijal muslim min xadiisi fadlu tawxid wa xuturati shirk bokk na ci li ñuy jëlee ci leçon bi tey mooy ab jullit dina ci mën a jàngee mën cee xame ne ngëneel gi nekk ci wén wéetal yàlla kennal ko ak lor yi nekk ci bokkaale ñetteel bi an yuridal muslim amsilatun ala sabri fi sabilillah ñetteel bi mooy muñ ngëneel yi nekk ci muñ ci yoonu yàlla ak lu la ci mën a fekk muñ ci yoonu yàlla ak lu la ci mën a fekk ci ay métit ci ay jafe-jafe ak ci ay problème même bu demee yenn saay ba laaj sax sa bakkan des ci nga muñ ngir yàlla ñett yi moo tax tey insha allah ñuy def dars su ñëwee ci leçon bi xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bu ñu sahaaba bu tudd taariq ibnu shihab nettali mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal daxala al janna rajulun fi zubaaba daxala aljanna rajulun fi zubaaba benn waay dafa dugg àjjana lan moo ko dugal aljanna benn weñ weñ weñ yi di naaw moo tax mu dugg aljanna weñ weñ yi di naaw di tag ci ñun di tag ci suñuy lekk di dugg ci suñuy biir kër yenn saa yi mu lëjal ñu ba ñu jëli benn produit rey ko weñ boobu moo tax waa ji dugg aljanna mu ne wa daxala naara rajulun fii zubaaba keneen a ngi ni ko dugg safara lan moo ko dugal safara mooy weñ googu kon weñ bi dugal na nit aljanna waaye même weñ boobu dugal na nit safara yonent bi moo doon nettali saxaaba yi de qaalu ñu ne ko kayfa zalika ya rasulallah yow yonent bi loolu nu mu mën a nekkee naka la weñ di dugalee nit aljanna naka la weñ di dugalee nit safara wa qaala alxabib muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne marra rajulaani ala qawmin lahum sanamun laa yajuuzuhu ahadun xatta yuqarribu lahu shay'an ñaari waaye ngi ni ñaari xarit yu àndoon ñaari nit ñu ànd ñu romb ay nit yuy jaamu benn xërëm laa yajuzuhu ahad hatta yuqarribu lahu shay'an kenn du traversé barab boobu ñuy jaamoo xërëm bi lu dul nga génne dara teg ci wetu xërëm bi barkeeloo ko wala nga màggale ko ko fa qaalu li ahdihima ña fa nekk ci xërëm ba ñu ne kenn ci ñaar ñooñu ànd qarrib balaa ngay buuse day utal loo teg fii nga doog a jàll utal loo teg fii nga doog a jàll buntu baa ngi nii boo tegul dara ci wetu xërëm bi doo jàll qarib utal loo fi teg qaala laysa indi shay aqrabu lahu waa ji ne aw ma dara lu may teg fii ci wetu xërëm bi pour jàll pour jege xërëm bi pour màggale ko ko pour jàll aw ma ko qaalu lahu qarib walaw zubaaba gaa yi ne ko weñ yi bu ci benn tagee rek dóor ko daal la mu dee nga teg ko ci wetu xërëm bi nga jàll qarib walaw zubaaba jegeel xërëm bi donte benn weñ nga rey allahu akbar walaw zubaaba reyal benn weñ nga jege ko qaalu lahu qarrib walaw zubaaba fa qarraba zubaaba waa ji daal di rey weñ bi daal di koy teg ci wetu xërëm bi ñu bàyyi ko mu dem fa xallu sabilahu gars yi daal ne bàyyi leen ko mu dem ñu bàyyi ko mu dem yeneen bi nee na waa jooju bi mu deewee fa daxala naar dafa dugg safara lan moo ko dugal safara weñ weñ la xeeb bakkanu weñ weñ kon ku rey ku reyal ku reyal xërëm xar nag ku jël xar rey ko ngir xërëm nag ku ko reyal nag nag nag ku ko reyal gëlëm nag ku boole yooyu yépp nag nga reyal ko xërëm bi lu tax bu leen xool li waa ji rey de loolu mooy wax ci bu ñu xool li waa ji rey nañu xool ki moom li mu rey ginaar fan la tàmbalee ci nen amal fii ginaar muy nen benn waaye ñëw toj nen yi dana la metti wala dalay neex bu fekkee nen yi dafa nekk cuuj nag mu ñëw rey cuuj ji bu fekkee dafa rey ginaar gi ci boppam nag kon bu ñu xool li waa ji rey ne weñ weñ déedéet ba pare ñaareel bi mooy nañu xool jëf ji lu tax mu def ko lan la ci bëgg neexal xërëm neexal ay nit ut lu naqari yàlla nit ñi dañ dul bàyyi xel li ñuy def da ngay gis ku ne moom loolu lu ci nekk lii rek yéen di ngeen a bëri problème waay ay sama waay defal waay ku muy ku muy soññ daal di def musiba daal leen di dal mbir yi dafa sew parce que mbiru diine la du lu yomb rek comme bëtu nit ñi nii nit ñi di ko xool di def déedéet buñ nee rey yàllaa ko moom rendi xoolal paaka ni mu mel wala bakkan ni mu mel bakkan ni mu foore yàllaa ko bind weñ boobu tey bu ñu la ne woon defar ko mënoo ko kan si ñun fii toog ci biir jumaa ji moom mun defar weñ yëkkati sa loxo mu ngeen sàkk weñ boo mën yàlla moo ko moom yàlla moo ko defar yàlla moo la tere nga rey ko yow nga jàpp ko rey ko ba pare reyaloo ko dara lu dul xërëm moo tax yonent bi nee na waa ji ba mu reye weñ ba ba pare ba mu faatoo fa daxala naara dafa dugg safara wa qaalu lil axar ñu ne beneen waay bi kaay qarib utal loo jege comme sa waa ji gis nga sa waa ji dem na yéen a àndoon yéen ñaar ma ngeen ne di la raw ma ngeen ne dem comme moom rey na weñ teg ko fi ñu bàyyi ko mu dem yow tamit bismillah defal ni moom waa ji ne leen maa kuntu li uqarriba li ahadan shay'an duna allahi azza wa jal duma màggal lenn ci kaw suuf ku dul yàlla tabaraka wa taala fa darabu unqahu gaa yi daal di dagg baatu waa ji ku ñu dagg sa baat luy xew waa ji daal di dee waaye fa daxalal janna mu daal di dugg aljanna ñaar ñi du ñu benn de ñaari gaay yi ki ki gàtt xel dane waa ji moo def mënoon na mënoon na kii rek rey weñ bi rek bu demee après mu tuub xam nga ñun luy suñu problème defal après nga tuub ku la ne boo tuubee yàlla baal la sa jabar rek wala sa doom def na la loo xam ne naa na ko yow pare naa ci yow àdduna ak àllaaxira jigéen def na jëkkëram loo xam ne jëkkër ji da ko ne yemale naa la ak sama ndey yow yemale naa la ak sama ndey pourtant peut-être jigéen ñi ba mu koy def dina noonu ah garaaw dina ma comprendre wala après rek problème la ñuy am rek ñu réglé ko gars yi ñëw ñu réglé ko mais waa ji ne ko yemale naa la ak sama ndey gedd ko définitivement bàyyi ko waxuma la ak nag nga tooñ sa borom nga tooñ yàlla subhanahu wa taala ci lan mu tere la nga def surtout nag bakkan nga dem rey bakkan beneen bi mooy ñu bare bari dañuy yaakaar ne li ngay def boo ko defee ñu rey la yow da ngaa perte wala ñu dóor la comme li xew tey ci jamono léeg-léeg nga nekk ci barab yu mel ni di wax am ñu mer ni kii ñun lay wax song la dóor la wala dem sa kër lakk wala barab ba nga ko waxee woon jumaa ja wala jàkka ja nit ñi dafa ne loolu dafa am lu ci nekk loolu dara nekk ci billaahi ñun dañoo war a bëgg ñuy lakk suñuy kër wala ñuy ñuy tuur suñuy bakkan ci yoonu yàlla ñun ñoo gën a yonent yi Ibrahima yeewu ñu ko ba mu ne ngodd sànni ko ci biir safara Yusuf sànni yuñ ko ci teen Moussa Firawna dàq ko sës ko ba dugal ko ci biir géej yonent yàlla Muhammad dóor nañ ko damm ay bëñam xuri oom yi génne ko fa mu juddoo fala mu nekkee ndaw nga xam ne fii rek la xam keroog bu ñu koy génne dafa tourné xool dëkk bi daan na ndeysaan màkk billaahi bu ñu ma génnewul noonu du ma génn dem mi dim diine ji ku ci bëgg am tiyaaba foog nga sonn foog olof yi dañuy wax ne mburu xam ngeen mburu ku ko bëgg a remplacer ci pour foog nga daj lu méttee métti waaye gis nga mburu bañ ba mu ba mu dajee la muy daj ci pour après ba mu génnee ñëpp ko bëgg mburu ku ko bëgg a remplacer yonent bi tamit ku bëgg a sol dàllam mais xaj yi ko mbawoon minimum foog ñu xiiru la quand même beneen bi mooy lii nuy wax ni diine la du yomb benn waaye dafay wax ne diine opération la opéré imaginez ñu jël weñ di dagg sa yaram pour ñaw ko wala defar wala xoolal xol ni mu mel ñu bëgg a xotti dënn bi génne xol bi raxas ko moom set génne lépp lu dul yàlla ci biir moom set daal ci dugal yàlla daal di koy delloo ci biir ñawaat dënn bi loolu du yomb de dañu fekk nit ñi gëm ay xërëm nit ñi gëm ay bokkaale nit ñi gëm gëm gëm gëm ba nga xam ne kenn ku nekk ci ñun yaakaar na ne loolu mu gëm bu xëyee suba waxu ko day dee léegi nag nga bëgg a ñëw ne waa ji loolu nga gëm baaxul mais du yomb du yomb foog mu metti moo tax il faut ñu waxante ko pour ñu xam ne pour nga nekk jullit il faut nga am pas-pas yàlla kese dafa bëri tey ci dëkk bi xërëm di rey ci lu dul yàlla ah nga gis ku yeew gétt fi yëpp mu fas yéene ko rey te yàlla taxul ku yeew nag di ko rey te yàlla taxul ku yeew ku yeew ku léeg-léeg sax waxuma ñu rey yi dagan ñu rey yu dagan léeg-léeg nga gis ab xarfa fuufa ab bu xaaba bu laaj nit muus bu ñuul kukk mu dem mu dem uti ko rey léeg-léeg nga gis kuñ ne reyal xaj mu rey ko deretu xaj rek lañ la laaj deretu xaj nga gis waa ji dem uti ji ko te tey loolu fees ci dëkk bi am na ci nit ñi ñoo xam ne xoolal élection yi passé ñaata xale ngeen dégg yu ñu rey ñaata nit yu ñu rey ñaata bi élection yi xoolal ni kon élection yi taxoon bi élection yi jeexee ak léegi kan ngeen dégg ku ñu rey dégg ngeen ko kon élection yi taxoon bi élection yi jeexee ak léegi déggu leen fi xale bu réer déggu leen fi ko ñu daggate déggu leen ku ñu rey kenn dégg ko fen kon ça veut dire que sacrifice bi ñu doon wax dëgg la te mbir mu jëm ci deret yàlla moo ko moom yàlla rek la ñuy tuural deret moo tax boo amee ngénte nga tuur deret boo amee ak céet nga tuur deret boo amee gan nga tuur deret parce que yooyu yàlla moo la ko sant nga def ko pour jaamu yàlla nga am ci tiyaaba mais amma di ko def pour ay xërëm ak di ko def pour ay bàmmeel ak di ko def pour ay nit loolu bokkaale la ku ko def da ngay dugg safara yàlla du la baal bàkkaar yi gën a bon ci bàkkaar yi mooy nga tuural ku dul yàlla deret bàkkaar boobu yàlla du ko baale mukk mukk mukk ku ko def bu yeboo nga xam ne boo dajeek yàlla di nga am problème kon mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na waa ji bañ ko nee jegeel wenn weñ mu ne leen maa kuntu li uqarriba li ahadin shay'an duna allahi du ma jël dara di ko jegeel yàlla dara du ma ko def di ko jaxe jox xërëm man yàlla rek yonent bi nee na waa ji fa darabu unuqahu gaa yi daal di dagg baat bi waaye fa daxalal janna mu daal di dugg aljanna rawahu ahmed su ñëwee ci anasiru dars mooy élément yi ëmb leçon bi mooy azabhu li gayrillahi shirkun ren di lu dul yàlla bokkaale la ba pare du bokkaale bu ndaw de shirkul akbar bokkaale bu mag la walaw kaana almasbuhu haqiran donte ne li nga rey lu ndaw la donte ne li nga rey wala waa ji lan la rey weñ li gën a lot ci mbindee fi yàlla bind muy weñ wala waa ji rey mu ne alxadis yadullu ala xuturati shirki xadis bi day wane ne danger bi nekk ci bokkaale danger bi nekk ci bokkaay loolu la ñu xadis bi di jàngal kenn ci ñun dina ne non dama am problème parce que sama papa dafa feebar wala sama yaay def feebar wër nañ hôpitaux yëpp vraiment tanewul léegi dem nañ ci benn waay waa ji nee na foog ñu reyal ko léegi nag nan la ñuy def il faut ñu rey daal nañ rey rek non garaawul yàlla dina xam lu ñu bëgg allahu akbar ci fi mu nekk nii ñu ëpp ci ñuy def loolu loolu la ñuy def keroog mbokk bi nettali nee na xale ba defal nañ ko loolu ba pare te wérul parce que wér ci loxo yàlla la nekk ndaw sa danaan daani rab bu daanoo rab wuññeeku mu ne yonent bi lii fu ma jëmeeg moom yonent bi nag boo ko muñee boo dee dem aljana mu ne kon ñaanal ma bu ma deewee bu bu ma bu may bu may daanu rab bu ma wuññeeku mu muñ pour ma dugg aljana ku leen sa mbokk mii wala sa waa ji sa baay ji sa yaay ji yàlla teg ko natt bi pour dugal ko aljanna léegi nag yow nga dem dollil ko bàkkaar mooy nga tuural ko deret sang ko deret bi ba pare wérul mu dee bu wéree baaxul bu wér bu wéree baaxul ñaari benn baaxu ci ba pare loolu ngay def lu araam yàlla wàcce na leneen lu dagan feebar boo gis rek yàlla teg na ci wetam lu dagan lu koy fay da ngeen yàkkamte rek et puis da ngeen a déglu ñu ngeen war te déglu feebar boo gis te tey li garaaw ci Sénégal mooy doo xëy suba ngoon déggoo ci rajo bi wala télé yi am wala rajo yi am benn bokkaalekat sëriñu tariyaax bu mag wala jaamukatu jinne bu mag bu ñëw woo mu toog ñu koy laaj muy tontu nga defee nit ñi ni wuu ni nii nag xale bu waxee sax yow eh déglu yow ni nii këj pare rek jël numéro waa ji suba ñu commencé dem gis nga te xamuñu ne kooku day julli te du jàpp day julli te du jàpp wala muy muy saw ci kaamil wala muy dugal kaamil duus ñooñu ngeen gis yépp ñu koy def dafa am lu bon lu ñu def ci diina ji moo tax ñu am jinne ñuy liggéeyandoo ak jinne bi ñoom ñëpp laa wax nag bàyyiwuma ci kenn ki seen xel dem rek kooku ci la bokk kenn doo nekk fajkatu jinne ci anam yi islaam araamal di di set di laab di takk di def lu baax mukk amul ñoom ñëpp koo gis mu ko ciy def du sangu set ah wala ay ay sawam lay jàppi wala day raxas ay saw laale ko kaamil wala mu jël li jigéen di gisee mbaax mu binde ko alxuraan fokk nga def loo xam ne da ngay kontaan loo jinne yi pour ñu dimbali la ci li nga bëgg léegi nag yow nga ñëw nga bëgg a dund ci loolu nga jël sa mbokk wala sa baay wala wala wala dem di ko defal loolu nga bëgg nag yàlla subhanahu wa taala baal la loolu mënul nekk mbokk yi hadis bi daf ñuy jàngal danger yi nekk ci bokkaale wa annahu yujibu duxuli naar bokkaale day tax nit dugg safara te safara lépp luy tax nit dugg fa ma ne boo doon dund ci lix fii ci àddina bi nga dund ci lix boo doon dund ci lix ah ba àddina bi jeex nga dem safara amul benn njëriñ boo doon dund laax ci lix ah mosoo ñàkk dépasse mosoo paas ci oto mosoo tëdd ci lu wow mosoo naan lu amul sukkar lépp looy dund ci lu neex la ba sa dund jeex nga dem safara amul benn njëriñ boo doon jóg di daanu ci kaw suuf fii di xiif di mar ba dee dugg aljanna da nga xam ne da nga mel ni mosoo xiif léegi lu ne di xu duggi xullee ba dugg safara sunu borom subhanahu wa taala mu ne ci suratu maida ay 72 mu ne innahu li wër tey mbir man yushrik billah képp ku bokkaale yàlla faqad harama allahu alayhi aljanna yàlla araamal na ci moom aljanna ku bokkaale rek boo ko deewaale yàlla araamal na ci yow aljanna moo tax bokkaale bon te nag réew mi pour nit rëcc fi ci bokkaale ah yombut de te bokkaale dafa sew nga xëy suba ba ngoon duggoo ci lu néew ci nit ñi la yonent bi nee na moo gën a sew tànki xorondom xorondom wu ñuul mbelentaan wu ñuul di dox ci xeer wu ñuul ci lënd mu guddi ndax di nga gis tànk yi yonent bi nee na noonu la bokkaale mel néew na kuy xëy suba ba ngoon fi mu wàccale la mbay yéegaat te bokkaalewul yonent bi nee na sunu borom subhanahu wa taala moo wax ci saar bi ne képp ku ko def xaramallahu alayhi aljanna yàlla araamal na ci moom aljanna araam la wax de yàlla araamal na ci yow aljanna kon fu mu jëm yàlla mu ne wa mawaahu naar këram saxuwaayam mooy safara mu ne wa ma li zalimina min ansaar képp kuy tooñ yàlla doo am ku la dimbali ëllëg yowma alqiyaama idan ayyuhal ahbaab mbokk julit yi fa taqarrubu ila gayrillahi shirkul akbar jege bëgg lu bëgg lu neex nit wala lu neex ay nit wala lu neex xërëm wala lu neex waa barab bi ba tax nga bokkaale jël lenn lu yàlla moom nga defal ko nit wala mbindeef wala dara lu dul yàlla loolu dañ koo tere ci lislaam fa inna rajulul awwal première nit ki ma leen nettali woon sànq almazkur fi lhadis qarraba shay'an haqiran taaziman li li sanam allazi marra alayhi waa ji ma leen njëkk a wax lan la jël mbir mu xeebu mbir mu ndaw mbir mu amul solo mooy weñ weñ rek la tàpp dàll weñ wa dee mu daal di koy yëkkati daal di teg ci wetu xërëm bi ñu bàyyi ko mu dem yonent bi nee na waajaa nga safara weñ kon ku rey nag nag yaakaar naa ku doon ku peese woon weñ ak nag ku indi woon blanche nga jël weñ teg jël nag teg nga ne ñoom ñaar ñaata kilo la ñaata kilo la weñ ëppe nag xaw ma nag ëppe weñ ñaata ñaata léegi nag kon ki rey weñ dem safara yow nga rey nag kon yow foo war a dugg hmm? kon nañ leen bàyyi xel mbokk looyu ñaareelu nit ka yonent bi nee na dugg na aljanna ndax lan lànk gi mu lànk bokkaale ndax xam na ni li bokkaale la man a bokkaale lu sew la bëri na lu doomu aadama di def mu defa ne ndeysaan li mu ci jële am na ci tiyaaba parce que moom xelam rek li ëpp tey ci nit ñi seen xel la ñuy demee seen xel barab bi de bu ma ko bu ma ko da ngay gis nit ñi julli ci siyaada yi ba pare naan nii sijaada bi siin la jóge sijaada bi jóge wu sax ci julli di siin siin waaye ko defar nga léegi nga koy raay naan nii lan lan la laamal moket bii moket bi fu mu jóge siin waaye ñoo ko defar yenn saa nga gis kuy raay karo yi karo yi jàkka ji dira lii karo bi fu mu jóge siin wala Italie boo ko raayee ban njëriñ la am kon du du sijaada yi du moket yi du karo yi du bunt yi dara amu ci njëriñ bu buggee barke da ngay jaamu yàlla yonent bi lan la doon raay ba am barke da ngeen ko mos a gis muy raay sijaada da ngeen gis muy raay suuf jàng nañ fenn ñu ne yonent bi da doon raay ab sijaada wala da doon raay dara suuf fi mu doon jiitu jiitu sujjóot ah moom kay mënoon na ne fii de maa fi doon sujjóot xaaral ma tibb ko foofu war na am barke de fi yonent bi doon sujjóot war naa am barke de waaye xoolal saxaaba yi mosoo leen gis ñu ne la yonent bi saa salaam fii la doon sujjóot ñun dañ fiy dee parce que xam nañu loolu day indi bokkaale loolu bokkaale lay indi am na benn waay da doon bëgg a jàngale benn dars dafa mos a dem ci benn jàkk mu dem wax fa mu fa doon jàngale benn xaritam doon demoon ci benn jàkk doon fa jàngale na mu jàngalee dars bi baaxul waa jàkk ji dóor ko imaam bi daal di wax waa jàkk ji dóor ko dóor ko dóor yi biiti parce que ni mu ko waxee moo moo xaw a dëgër mu dem ne xarit bi dóor yu métti lañ ma dóor mu ne ko loo def mu ne ko nangam laa fa wax mu ne ko waroo koon waxee noonu dinaa la fayul bàyyil dinaa la fayul mu ñëw bàyyi ba mu am ay fan mu ñëw ci jumaa ji bàyyi ba ñu sëlmal rek mu jóg taxaw daa ne asalaamaaleykum ñu ne salaam mu ne mbokk yi ñu ne ah mu ne ilimaan bi ku baax la man xam naa ne ku baax la parce que biig ci guddi dama koo gént bi ma ko géntee ñu ne képp ku am ci sikkimam bi benn buum di nga dugg aljanna rek waa jàkka ji saax-saax yi imaam bi di buddi sikkim bi di buddi sikkim bi imaam di yuuxu ñu koy buddi di ko buddi ba yëpp naaj yëpp naaj yëpp góom imaam toog ñeenti weer ñëw ci jàkka ji ndax sikkim bee yàqu maa gis nga nit ñi gëm lu dul dëgg xoolal waa ji ne ima sikkimu imaam ku ko buddi rek ku ci am benn wëñ rek di nga dugg àjjana rek nit ñi ñëw buddi sikkimu imaam est-ce que loolu dëgg la ah mais daf leen bëggoon wan ne yéen gëmu leen dara gént naa imaam bi rek ku gudd ku am sikkimam bi rek dem aljanna rek ñëpp buddi sikkim bi benn rey nañ imaam tooñ nañ ko mais waaye daf leen bëggoon jàngal ne nit ñi gëmuñu dara dafa bëggoon fayul aussi waayam dañ dóoroon ba mu amee ay fan mu ñëw ne imaam géntuma dara yaa dóorlu sama benn waay rek ma yoole la gaa yi kon nañu bàyyi xel yoob yu bëree bëri dañ ko fi wax mbax ne diw ak dàll diw ak satala diw ak satala gi waa ji da ko doon jël pour jaamu yàlla si jaada ji da ko doon jullee kurus gi da ko doon wirdee yow bu fekkente ne loolu doo ci def dara boo amee ci kurus gi benn période lu mu lay jëriñ du la jëriñ dara si jaada bi waa ji da cee julli ba mu bënn yow mosoo doo julli boo jëlee sijaada bi ne da nga ciy fanaan ba njëriñ la tëdd ci kese waa ji yore ko woon pour tëdd waa ji da doon jaamu yàlla kon jaamu yàlla mooy jëriñ nit nit ñi bu ñu bëggee ñu dugg àjjana nañ leen wax dem leen ngeen jaamu ji yàlla bu ñu leen bañee nax dañ leen wax dem leen ngeen jaamu ji yàlla tout court mu jeex mu simple yonent bi bi mu ñëwee dafa jaamu yàlla saxaaba yi topp ko mu ne leen jaamu leen yàlla waxul kenn ci ñoom toog leen amul problème dinaa leen res ëllëg saxaaba yi dañoo jaamu yàlla moo wax ci alquran kaanu qalilan min al-layli maa yahjaun néew na luñ daan nelaw guddi yàlla sax tagg leen ne allazina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyaama dañ daan fanaan naafila di zikr di tudd yàlla nga gis ku ci julli ba jëbi yàqu oom yi yàqu ñu jooy ba seeni rongoñ rëdd ci seeni lex ñu dëddu àdduna ba boo leen séenee di leen yërëm ndax ragal safara ngir bëgg aljanna ñun ñunu mbir a ngi nii julli yi sax da ngay waaru koor gi waxi noppi téyewuñu bët yi téyewuñu làmmiñ yi du ñu lekk lu dagan ba pare am confiance ne ñun dugg nañ aljanna ba pare te ñee jaamoon yàlla ba sonn ñoom gëmuñu ne dinañ dugg xoola Abu Bakar xam ngeen Abu Bakar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ma doon am xarit ci kaw suuf Abu Bakar mii lay nekk waaye yàlla sant ma ma ko fi ut Abu Bakar Abu Bakar de yonent bi neen bu ñu jëloon ngëm yàlla àdduna bi yëpp teg ci palaat jël ngëm yàlla Abu Bakar teg ci palaat mu ne Abu Bakar dina leen ëpp ngëm ki yone- ki nga xam ne bi yonent bi faatoo moo ko remplacé yonent bi ne ko yow Abu Bakar mu ne ko ah mu ne ko di nga dugg aljanna anta min ahlil janna nee na sama tànk ndeyjoor bu duggee càmmoñ bi ñëwagul wóorugul te nee nañ ko yow da ngay dugg nga defe ne man bu ñu ma ne woon yow yow da ngay dugg àjjana man dinaa ñëwati fii di buuxante ci sàppe yi damay dem ut benn piliyaan rek tëdd bu gaa yi rombee man leen nuyu leen ma waa mosquée dugg nga aljanna ba pare xooleel Ous Ousmane yonent bi moo xool Ousmane ne ko loo defati yàlla xoolu ko Ousmane mu ne ah mu ne ko yow mu ne ah mu ne loo defati yàlla xoolu ko yow mu aljanna ku dugg nga dugg ku duggul nga dugg te terewul dégg ngeen Ousmane xooleel li mu liggéey xool li mu def. xool ñu li ñu leen seedeel te ñoom dañoo jaamu yàlla ba mokk ba Ousmane dañ ko rey dañ koy rendi mi ngi jàng alxuraan deret ji tuuru ci këyit bi dañ ko rendi fekk mi ngi woor bëccëg mu gént gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko Ousmane mu ne ko am ah ba ngaa ndogu si ci man boo bëggul ndogu si ñu yónnee la ay soldaar yu la aar Ousmane ne ko tànn naa ndogu si ci yow mu yeewu jàpp julli ba pare jël kaamil bi dinaa fi la ñu fekk ko foofu rendi ko ah xoola ñooñu liñ daj ak liñ jaamoo yàlla ñun defun dara te ñun ñoo gën a am kóolute ñooñu ñun koo gis dugg na àjjana ba pare kon nan bàyyi xel lii ñuy jàng nii yonent bi moo ñu koy jàngal pour ñu mën a rëcc waa ji buñ ko nee utal loo joxe mu lànk gars yi daal di koy rey dañ ko reyee yàlla daal koy dugal ajanam waaw maanaam ci misaal bi ma laaj maanaam nga loolu benn ginaar nga sàmm ko.
waaw ñëpp nekk.
waaw
loolu xam nga la bëri daal ci yoo xam ne xam nga foofu pour lu affaire yi taxul.
loolu dagan na kon kon rek yàlla sax si kon.
loolu dagan na dagan na nga ñël dara reen di togg ci kër gi ñëpp lekk nga def ko ngir jaamu yàlla loolu lañ bëgg moo dagan mais bu ko def ngir xërëm wala deret ji pour dara jël deret yi def ci dara comme nit ñi ni ñuy def di rendi xaru tabaski xam nga loolu yàllaa ko santaane waaye kenn waxul nga tànq ci deret ji wala nga ciy càpp di def sa jëw wala ngay denc bi jën yi dafa aram rey ko ngir yàlla li ciy sobe nga jël sànni yi la ca daganaat comme der bi buñ ko wullee dagan na ayyuma ihaabin dubira faqad tahura bépp der bu ñu wulli dagan na ñu jëfandikoo ko sol ko daf ko saak julli ci dagan na béjjén yeeg yeneen yi ñu dem sànni ji ko mbalit la kenn du ko kenn du ko utiliser waat deret ji sobe la deret liñ ci maye ci lislaam mooy lu toll na juróomi dërëm deret liñ ci maye ci lislaam mooy lu toll na juróomi dërëm ni mu toll noonu juróom ni mu toll boo ko tegee su amee lu la taq noonu ci deret lu toll noonu loolu lañ la may bu ko ëppee sobe la sa njàpp yàqu na ki rendi xar bu paree dafa war a jàppi ki rendi nag bu paree dafa war a jàppi ki ko fees bu paree dafa war a jàppi njàppam yàqu na deret jooju ñuy rendi bu naan fër bu la laalee sa njàpp yàqu na lu ëpp juróomi dërëm kon deret sobe la léegi nu ko nit jëlee di ko sangu mi ngi mel ne nga dem du sang sangook wala nga tuur ndox sangook noonu la mel deret sobe la day yàq njàpp kon dinañ ko sang nit nit dina ko tuur su dul yàlla kon loolu nañ ci bàyyi xel fi ñuy jeexale mooy fadlu tawxid wa sabru alayhi ngëneelu tawxid ak muñ ci tawxid dafa métti wax naa leen sànq boo amoon malade di ko opéré hôpital day métti fi mu nekk nii sax boo amee malade ñu ne dañ koy opéré rek xel yi fu muy dem ñëpp ay tiit sama malade bi de dañ koy opéré ñëpp tiit tawxid nag moom mooy opération mooy dañuy xotti xol bi génne ko yëlëb yëlëb lépp lu dul yàlla ba mu set wicc wicc wicc ñu doog a dugalaat ci biir soo nanguwul lool rek amagoo diine shirk dafa am danger bu rëy moo ci nekk lu ñaaw la donte ne lu ndaw la jullit dafa war a def sacrifice boppam ngir diineem mën a baax fi haza al xadis imtana ar rajulul axir ku mujj ki lànk na mu faatu dugg aljanna ku mujj ki dem rey mu faatu dem saxara kon jullit ñi war nañu ràññee jaamu yàlla yi li yàlla moom ñu jox ko li keneen moom ñu jox ko mbirum rey ak mbirum jege ak mbirum màggal ak mbirum mbirum yooyu mbiru yàlla la tabaraka wa taala ñu bàyyi ko ak yàlla ñu bañ ko xëccoog moom gis ngeen mbiru tabaski tabaski da ngay rey lu tax dagan na ibrahima keroog bu mu téyee ismaila di ko ren pour kan la woon pour yàlla waaye même bàmmeelu yonent bi saa salaam kenn du ko rendil waxuma la ak bàmmeelu keneen tabaski nit ñi dañuy nekk fii di rey booy rey looy wax jubal paaka bi ne bismillah allahumma inna hada minka wa ilayka nga doog a rende yàlla lii ci yow la jóge woon ci yow lay dellu gis nga yàlla soo rendee sax tudd ci turu keneen waxuma la rendi bi baaxul waaye la nga rendi araam naa lekk wa ma uhilla bihi li gayrillah képp lépp lu ñu rendi te tudduñ ci tur yàlla araam naa lekk waxuma laak nag waxuma ñu rendi ko dul yàlla de déedéet ñu tudd ci lu dul yàlla rek araam naa lekk kon mbokk yi ci yàlla lii moo doon dars tey bi bu dee ay njuumte mu ngi ci ñu ngi koy jégglu bu dee jub na loolu lañ namoon yàlla na yàlla def ñu jëriñoo ko assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu